bisimilah rahmaani rahim euh, euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, di nuyu Serigne Cheikhouna mi ñu jàkkaar moo tax ñu ñuy seetaan ci àdduna bi waaye di nuyu soxna Coro bi nga xam ne mi ngi ànd ak Serigne Cheikhouna mbokk yi ngeen di ñu seetaan ci site bi nga xam ne mooy SENactu 44 point com ñuy wax rek ci tolluwaayu dëkk bi ndax. yàlla moo ñu jàngal ci alquran ne dee leen fàttali ndax fàttali dina jariñ kenn képp koo xam ne danga nga gëm te yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wax ne bu ngeen gisee loo xam ne lu bon la dindi leen ko loolu buur yi ñoo ko man mu ne boo leen ko munut na ngeen taxaw naqarloo ko jéebaane ko ba dëkk bi xam ne lu bon moo fi nekk bu fekkente ne loolu munu leen ko nag ngeen taxaw naqarlu ko ci seen xol pour wane ne carrément ñun loolu ànduñu ci ñu gis ne euh, dëkk bi euh, fii ñu toll ci jamono ji ñu toll situation bu bu bu bu doy waar toll bu métti loolu lépp rek day dolluwaat ci ñun réew Afrique dañoo am ay dirigeants yu cuune maanaam ñun ay njiit lañ ñàkk ay nit ñoo xam ne euh, mën nañ wàcc ci kaw askan wi dige lu nekk ñu wax ko ne fal leen bu ngeen ñu falee dinañ changer réew mi boo leen ñu falee dinañ soppi réew mi dëkk bu ne ñu campagne fa dige bu ne ñu def ko plan bu ne ñu teg ko programme bu ne ñu bind ko waaye gis nga bu ñu faloo taxañ nañ ko sànni ci ñag ba réew Sénégal noonu lay dundee looloo tax réew mi du du du ma du ma mas avancé ci nii mi doxee te ay dirigeants lañ laa fi gis yu nga xam ne dañoo mujjee puso bi mu réer maanaam gàcca du leen rey ay nit ñoo xam ne ci suñu réew mi tey luñ la wax suba ba ngoon jot dara du ci am maanaam liñ la wax ngelaw la mbosóor la Sénégal moo am ay njiit yoo xam ne tey boo leen falee ci réew mi pour jiital leen bu fekkente ne jekku nañ alalu askan wi alal ja dañ koy jël génnee ko réew mi dem denc ko ci banque yi réew mi di souffrir baykat yi bu ñu bëggee bay tey kenn du leen dimbale te réew mi ku ne xam ne ne mbay moo mën a avancer lu am réew nga gis ne suuf bi Sénégal di desee ku néew dañ koy dagg di ko jaay ba réew mi dañuy dem ba ëllëg génération bi mujj a ñëw duñu am fu ñu dëkk moo tax génération bi mujj ñëw bu ñu ñëwee saaga ñi leen fi jiitu lañ fi nekkee parce que danaa ndekkete ñun ñu ñu ñu jiite ñoo trahir suñu maam yi trahir suñu papa yi kenn du leen nawloo maanaam réewu Sénégal mooy nekk réew moo xam ne ku mujj judd li ngay wax mooy ñun de ñu ñu jiitu woon yore suñu réew mi su sant ba léegi ñoo tardeel Sénégal ñoo sàcc alalu réew mi moo waral ndoo réew mi nekk ci kiris nekk ci ndóol ay at ñi fi jiitu ñoo jaay suufu Sénégal gi yëpp ba tax na réew mi genn wàll gi amuñ ñu dëkk étranger yi ëpp la li nga xam ne mooy ci réew mi génération bi mujj juju dinañ dinañ xeeb seen baay xeeb seen i maam xeeb njiit ak seen i la ko waral mooy lan ñàkk jom bañ sa réew ak li nga xam ne nekk nitu yàqkat goo xam ne yaa raw golo mbokk yi Sénégal fii la tollu tey Afrique ñi fi nekk boo leen jëlee di leen jàngat ci démb doo leen def ay nit da nga naan Afrique ñi leen jiite du ñuy nit ay nit ñoo xam ne ni bàyyi ma di dox fonctionner noonu la ñuy fonctionner amu ci kenn ku lay wax loo xam ne dëgg la amu ci kenn koo xam ne dina la jo maanaam dina respecter li muy wax askan bi te moo ne koo ci gis ma nga ak téeméeri programme ak ñaar fukk rek di wër askan wi rek di leen wax loo xam ne dara du ci dëgg te li yës ci àdduna mooy mag muy fen yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale woon na ne ab julit bàkkaar bu ne mun na ko def mais du fen du wax du wax loo xam ne du dëgg waaye réew mi 98 pour cent yi ci kàcc la ñuy dox ci njublang la ñuy dox ci nafeq la ñuy dox ci wuruj la ñuy dox ci wor lañuy dox loolu moo waral Sénégal tey deltu ginnaaw réew mi nag damay wax ne 1960 euh, ba léegi amaguñ seenu njiit waaye ci moment bi ñu toll ñu ngi gis comme ñi fi nekk muy président Macky Sall moom dañ koo fal 2012 bañ ko falee mu teg fi yoonu yokkute programme bu ne nag dugal na ko fi ay plan Sénégal émergence ay yoonu yokkute lu ne lu ne dugal na ko fi waaye tey man li ma jaxal mooy li nga dugal lépp ci ay programme te teewul réew mi day gën a deltu ginnaaw benn avancement réew mi amu ko te boo xoolee mbooleem depuis 2012 chaque régime maanaam changement du gouvernement yi am yëpp maanaam bu ñëw yaay yées tey bu ñu xoolee gouvernement yi ministres yi kenn faalewu ci askan wi bu ñu leen wooyee duñu leen wuyu ñoom daal ba pare lu leen neex la ñuy traité askan wi mooy liggéeyu lu ñu réew mi seen bopp lañ fi nekkal te moo ne président Macky Sall bi ñu lay fal dañ nit ñi dañoo amoon ci yow yaakaar am ci yow yaakaar ne da nga yóbbu réew mi foo xamante ni bii tey suñ njort dana ko dana passé suñu njort waaye yàlla xam na ne gàcce lañ mujj am déception lañu mujj am dañoo mujj ñépp a maase di rëccu ci ne bu bu doon tey Ablaye Wade du fi juwe parce que Ablaye Wade dañ koo diaboliser jaxase ko ak askan yi waxal ko lu nekkut tuumal doomam waaye bi ñu demee benn at ndekete xam na ñoom am a ama dansuxoo ñeneen ñeneen ku ci nekk tuumaal Ablaye Wade ay milliards ak i doomam gisuñu dara ba ñu génnee ko rëkk bi waaye tey xam nañ la lu ñu doon waxal Ablaye Wade amut moo tax tey réew mi ñëpp ngi jooy réew mi ñëpp a ngi sëngéem réew mi tey ñëpp ñëpp ñëpp ñoo sonn ba pare nag faaletuñ leen parce que koo fal premier mandat deuxième mandat mu doxalul dara boo toogee ba mu yàgg rek nga dugg ci raison yi diggee ñëw toogaat six mois yu ne nga wala nga dugg ci raison yi ñëwaat digleen ñëwaat te amul dara luñ la loo xam ne dañ leen ko defal parce que li bi ma njëkk a jël mooy dañoo waxoon ne eh, conseil des ministres décentralisation yi ñu defoon ci raison yi région bu ñu nekk diggoon nañ la ay milliards mais milliards yi ñu diggoon région yi amu ci benn région boo xam ne jot nga waa kon léegi naka la ñuy jugaatee di def tournée ek tournée boo xam ne yow yaa ngi dellu foo xam ne li nga leen dig joxoo leen ko dig nga leen ndékki joxoo leen ko nga dig leen añ joxoo leen ko nga daa dikkaat nag dama leen di dig reer ban njariñ la tournée yi am amul benn njëriñ Kaffrine gee ñuy wax tey moo gën a sonn man dem naa fa Kaffrine ñoo gën a lot ñoo gën a sonn ñoo gën a bekkoor ñoo gën a deltu ginaaw ci suu ci ci soonu Saalum bi boo duggee Fuuta gii ñi nga xam ne fa la ñuy waajal semaine bii muy euh, samedi dimanche gaa ñi amuñul ndox mu baax mu ñu naan amuñu lu ñu lekk jooytu nañ ko fii ba génnee seen teen yi ñuy rootee tey te ñoom waa Fuuta dañoo waxoon ne ñoom waaw quatre-vingt-cinquante pour cent xuma la nag lan la ñuy fal président Macky Sall mais bañ ko falee ba pare après lu leen defal ndar géej yoo fa jógee yàggut ndar ñoo gën a sonn ndar moom day dëkk bi nga xam ne dafa deltu ginnaaw depuis Mansour Faye yor ko ba léegi maanaam depuis Mansour fay nekk maire ba léegi ndar dafa deltu ginnaaw dara dara dara lu ñu defar ndar amut ay fuutaak ay maatam ak dëkk yi nga xam ne moom la ñuy waajal di fa waaj a def tournée amalut njariñ ci askan wi man de damay joxe samay conseil mooy

2012 ba muy métti kenn jiitu wuñu ci yaakaar a taxoon ñu def ko waaye yaakaar yooyu dafa tas déception la ñu am dañoo rus ci li nga xam ne nii ñu jàkkaarloo woon ne leen watee leen nga xamante ni mooy Macky 2012 dekkal ngor ba léegi nag ba ñuy wax ca dekkal ngor ja di wax nit ñi naan watee leen ñii yaakaar ja ñu amoon tey ñun dañoo rus bu ñu gisee rek dañuy am gàcce dañuy am kersa dañuy sëgg mënatuñu sëgg xool ñun ñi ñu jaxasooloo woon ne leen fal leen jamono boobu nag yàgg na li may nettali booba mën naa ci nettali Alioune Badar Cissé ki ñu tuddee médiateur moo ko mën a nettali xam na ci lu bari moom Abdoulaye Sylla directeur général e-, Ecotra xam na ci dara ñi ñëpp dañoo àndoon topp sama ginnaaw may wax ak askan wa waaye askan wa ma doon waxal te rus naa ma ne leen nag maa ngi dem naa ci ñoom ñëpp jéggulu leen ak ñeneen ak ñeneen ñu bari ñoo xam ne mënuma leen tudd président Macky Sall sa ñaari mandat yi ko am fi way wu rafet yaakaar naa tournée yii ñuy def ci région yi du leen jural dara xiif nañ mar nañ baykat yaa ngi sonn étudiant yaa ngi sonn commercant yaa ngi sonn moodu moodu yi waxaale wu ma leen daara alxuraan yi waxaale wu ma leen réew mi foo laal day métti ñu nekk ci tournée goo xam ne di wax dëgg yàllaam ñaawal askan wi la te discours yay bàyyi koo ci région yi amul benn njëriñ parce que discours boo xam ne munoo cee jàngee dara bi ma laajtee lan lañ wax Kaffrine kenn mënu caa nettali dara bàyyil ba gannaaw suba bañ jógee Fuuta maatam ak Fuuta doone la benn sénégalais bu lay nettali ne lii laa ci jàngee lii laa ci déggee benn wax bu ci am njariñ amut mbokk yi lii la ñëwoon dinañ ko wax ci actualité bi moo tax dëkk bi miti nga gis accident yi bari nga gis agression yi bari nit ñi sonn lot amatuñ dara ngir covid bi ñu leen tëjoon nit ñi amatuñ luñ lekk amatuñ luñ naan ñu tëj leen atu yàlla jàppalewuñ leen ci dara parce que génnewoon nañ nee na ñëw yi danañ dimbale askan wi askan wi gisuñu dara mill milliards yooyu ñu doon wax ak aide alimentaire ba ñu joxoon Mansour fay kenn gisul dara ñu ngi ni ñu woo ko ci OFNAC mu lànk ni du wuyu ci léegi loolu duñ ko lijjanti te kuñ ma sa woo OFNAC ñu ne la da ngay wuyu ci sant bi kenn waxaale wu ko mbokk yi dëkk bi li fi nekk kenn mënu koo wax waaye dama bëgg wax ne ngeen yeewu 2024 lañ jëm Sénégal ni ma waxoon ne bool boo duy ba mu fees mu jékki-jékki këpp li ci kaw fare suuf li ci suuf fare kaw 2024 loolay am 60 ba léegi ñi fi nekkoon dinañ abal Sénégal yi dem ñu indiwaat beneen classe politique bu bees te buñ ci àggee rek ngeen xam ne àgg nañ ci incha allah kon seen mbokk imam Serigne Cheikh sal président de l' association des imams et de Touba doo def ay jàngat ci actualité bi waaxiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin